y no caí jërëjëf mbokk internet di ñu suivre sur Kewel Info di leen nuyuwaat bu baax di leen di leen bëggee ñuy ak kilifa bu euh, ci diggante Diop 2 ak Cité bu Ngor mais nag euh, bii nag dañ naan en route vers le 8 mars ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Cité euh, bu Ngor ak ki nga xamante ni moom mooy Diop 2 ñu war a am nag benn face to face fee ci Adrien Senghor ñu def ko entrée 1000 francs kon ni ma ko waxee woon rek entrée bi c'était juste pour ñaari mbër yi ku ci gën a fair play ñaari mbër yi ku ci ëpp supporter trophée bi ñuy tegal te tamit juste tey boo defee li nga te moom mooy gratuit am na ñoo xam te tey mënuñoo dugg pour perturber li nga xam te mooy signature bi raison pour la laquelle ñu def ko entrée loolu rek la gannaaw boo jubee jëlee ki nga te moom mooy job do ñu ñëw fii si grand ci euh, Ngor ñoo seet ki nga te moom mooy champion bi euh, ki nga xam mooy Siteu bu Ngor di ko jaajëfalaat bu baax a baax ndax moom mi ngi ci préparation yi juste rek pour wax ko pour mu euh, sensibiliser ñi nga ñoom ñooy ay supporter am kon ni ko job doo defee suba incha allah nar na nar di nuyu nag suñ gars yi ñu fi fekk yëpp champion bi maa ngi waaw ñu lay fay yàlla booy Fatma waaw di wax ne gannaaw bañ sant yàlla julli si Yonent bi di sant suñu ñaari waajur di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Seera Fall Carol ak sëñ Matar Mbacke yow di nuyu àdduna ñëpp rawatina fi nga ñu fekk muy Ngor Yoff Waxaam Almadi Tarawo waaw di nuyu fukki penc ak sant yëpp 121 tundul lébu yëpp maa ngi nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw di nuyu ndaxaaru Njaay yëpp waaw. kon ni ma ko waxee woon sànq Siteu ñu gis ni lu musul am benn inovation boo xamante ni Fallou Ndiaye def na ko. adressé woon suba incha allah mu nekk 8 euh, mars sargal jigéen ñi euh, suba ngeen war cee jàkkaarloo mais nan nga gisee inovation waaw loolu dañ koy rafetlu rek waaw buñ ko bu ko defee du na gurel quoi man loolu jikkoom la. waaw lu kenn lu kenn nag kenn mënu ko moom mu ñëw def ko yaago na ko def kon bu ko defee ñu bet waaw mu boole si ay xale nag waaw ñu war a sargal jigéen waaw dañu dañoo bëgg suñu ay yaay waaw képp kuy jigéen ñun dañ laa jox cër war man la xam nga naata nit waaw jigéen daal moo waral lii lépp waaw ñooy suñu yaay kon duñ def dara du leen sargal leen xam nga di leen bége di leen masaw coono di leen jox seen wàccuwaay képp kuy jigéen waaw ñu lay sargal bésu tumaroo bi incha allah le huit waaw képp kuy jigéen dak waaw. Euh, loolu am na solo mais ñu gis ne suba incha allah yow ak Diop de adressé Ngor moom dina ñëw day faatu Adama Jali tey ñu gis ni macha allah face to face fi comme si c'était que sax benn combat VIP kon li ma wax rek ay ñaar phénomène ngeen ak lu mën a xew da gis nañ si tabu ngor macha allah ci côté mbooloo kenn du ko nantamle suba incha allah lan ngeen nar. suba waaw ñu ngi waaj ah boo xoolee signature bi yaago ñu si communiqué sax mais samay supporters ñoo ma ko gën a bëgg bar sëñ Fallou waaw ah, ñu ngi koy waaj kon ñuy waajee di dem stade lamb bar Seydina Mouhamed waaw ah, suba ku ñëw fii rek kaar kaar yëpp fi lay déparé incha waaw suba incha allah kaar yëpp fi lay déparé nañ gars yi ñu teel a génn rek ndakaaru bi yëpp waaw ndakaaru bi yëpp nañ teel a génn à partir de 16h waaw ñu teel a yëpp kaar yi teel xam nga teel a dem esaat waaw nga la waaw man yoon na mat huit kaar sama rakk la maa ngi koy bu baax maa ngi koy sant bu baax fayal na ma huit kaar waaw mu fayam quoi du wax na nag nañu waaj kaar yëpp mu ngi fi ñu teel a génn teel a sañse teel a dem signature ba waaw ñu jàkkaarloo ñu joxante waa yëmba rendez-vous foofu rek. Ah, incha waaw Grand Yoff. mooy Dakar Grand si Ndakaaru la rek ñun mos ñun ñu am lu ñu jigee ah. waaw fi da fay ay kaar dem Grand Yoff. Ah. di woo samay supporters yi nekk Grand Yoff yëpp nag. bar Seydina Grand Yoff ay soo yéexee. ñaar kii yëpp moom moo koy jël ah, parce que nee am na nu muy demee sax yéen da ngeen taxaw ci écran géant yi. waa Grand Yoff nee na booy ngor di ñëw Grand Yoff derkala bi zone 7 bi neena na jarul booy ngor di ñëw waaw bar Seydina Muhammad waaw di sant Yaas Yaas maa ngi sant bu baax Grand Yoff Grand Yoff yëpp xaar yàlla beeg ñëpp xam nga di woo waa réseau Grand Yoff maa di woo bu baax mafia yëpp waaw bépp lay woo suba incha samay supporter ñoom dañ ma bëgg rek ma bëgg leen ñoom dañ buñ ànd ak seen mbër bëgguñu wañ dal si kawam wala picc buy naaw di dal si kawam. mais lan ngeen di wax suba non à ñun duñ tooñ li ma waxoon rek ñun duñ tooñ kenn mais ku ñu tooñ des suñu jiko la ma waxoon rek laay waxaat. Eh, lamb milieu la bar Seydina Muhammad non mooy loolu. waaw illah li. lamb milieu bi ngay woote moo la ëpp mafia moo la ëpp milieu. Boy Diop Lara bu ma ko soxlaa woon léegi léegi ñu indil ma ko. lan barki Seydina Muhammad su ma ko soxlaa woon léegi. Ah. ñu jox ko rendez mu ñëw. kan ma koy kidnappé yow da ngaa mën a kidnappé. yow ma Diop Diop mafia yow bu ma waaye mafia <laughs> ma bàyyi ma waaye. ay mafia baa ngi fii <laughs> kii dafa daw xanaa yow. boo ko soxlaa mu fekk la fi léeg-léeg. am na ñu may dox la ay mission man ñoom xamante ne ñoom samay mission rek la ñuy dox doxuñu leneen. bar Sera Fall Diop Diop bu ma ko soxlaa léegi ñu indil ma ko ku dul Boy Diop laa moo jaaral nii day jaar nii ku dul moom bar Sera Fall. moom nee na li mu waxoon tey tey la ko gën a waxaat ba tey daw làqu nga wax na ko tey ma insisté mu ne ma damay wax di ko waxaat di ko waxaat mille fois Siteu Siteu bu Ngor daw làqu la te man musuma gis nga daw làqu ci kenn. waaw daw làqu boobu si kan laa daw làqu man <laughs> daw man. Ah. non non daw ma laa ko sax moom ni mu amee ay gaañu mbar xaritu mbar man noonu laa ko amee te bareeloo ma si sax. Uh-huh. non man lan moo tax mu ne daw laa ko nga. man bareeloo ma si sax ñaar lañ ma xamee mooy loolu sëñ Fallou. est-ce que nekkul ñaar ñooñu ah ñooñu li ma waxoon rek man moom ñooy jëflante. Mm. yee moom li ma ko mën wax xam nga mooy lan. la lañ le 19 la ñuy bëree. Uh-huh. le 19 moom sama jarbaar lay doon. sama jarbaar lay doon. sa jarbaar lay doon. bon bañ yegg bar Serigne Mohamed. nga ñeme si euh, da nga ñamal ñeme Diop. non ñi ma ñu ma umpale moom. Ah. waaw moom dama umpale. am na luñ ko dee nag. Ah. moom am na luñ ko dee. Ah. ñu koy dee ñu ngi koy nax la ma ko waxoon rek. làmb ji di yooyu de. Hmm. bii nii mooy loolu de bii la sa kiri bi la ndak mooy loolu teg jeexal bi la. ay da loolu mooy loolu. bëgg loolu kot la. Mansour boobu la boobu lay boobu koy der mooy déranger ay suma teeram. bëgg waaw teel nen nen bi la yéex a nen nen. Ah. waaw teel nen rek noo fal li si ginnaaw. say làq say kàllaam di ko di di ko mooy loolu kàllu sax dama kaa wax pour moom ñi si ginnaawam. waaw ah. ah, moom limu ne amul ma aw moom ma fi moom li ma si ginnaawam bu dee ay nante lañ. dinañ ko wax li ma wax lépp loolu la. ndax moom nee na bu ñu ko sax ay mu munoo munoo boo ne bu ngay leetoo muy leetoo nee na yow saako yi rek nee na yow say saako yi rek ngay daw. waaw loolu waxu mbër la bu arbitre sifflé naa dem si saako yi waaw waaw naa dem si saako yi. incha allah. Ah, hmm. moom yow waaw bu arbitre sifflé ah. naa saako yi incha allah. booy Diop ah. bu naa dem si saako yi incha fekk ma fa. li pol fu dee naan arido argaay bu <laughs> ma def ko lu puccuru nga naan ma def ko lu puccuru waaw lu puccuru ay samay pol fu dee laa koy na ko nee na ma bam ma ala njiije <laughs> mooy loolu naas kay kañ fi mu ngeeg lépp yoo yaa ngi ngor de ñun namuñu dara bari seera fall ñun ñu ngeeg lépp mooy loolu jën yu bees waaw moo jën yu bees tax ay coof barees ñoom ñëpp ay sëdd mooy loolu waaw ah, moom mooy not doo si yebey rek ah. waaw mooy loolu waaw làmb ji na ko saraxe ah. mooy loolu ñun mooy loolu de parce que ci soow mi mu ne ma yi bari na fi mel man lañ ñaan borom soow yi ndax ñoom seeni soow moom taxul ñu naan boo yoree téeméer nga dem si laay fii mu jaala mbuusu soo laay saalum soo bi bokkul ñun soo ñun piir lañ yor ñun soo piir lañ yor ah. mooy loolu waaw non tax si soo bi damay niinal rek damay niinal rek bon damay niinal day niin ar bi day fomp damay rek <laughs> mooy loolu xam nga soo day niinal nit ah. waaw moo tax muy bàyyi la sa temps mu koy xam nga mooy loolu hmm. kalamti ko Boy Diop am nga làmb de bu la leeree muy sa jàmm mooy am nga làmb nee naa la làmb ji làmb milieu la làmb waga la ay laay tàmbalee sa si di si tànk yi fii fii laay tàmbalee cër pour cër par mooy loolu de waaw waaw rendez-vous tubaroo allah waaw ñun mooy loolu à partir de mooy samay supporter waaw euh. quatre maa leen di woo euh. fu fuñ mën ta nekk euh. maa leen di woo xam nga ñu daje fii ñu yéeg ci kaar ñu dem si jàmm ak salaam uh-huh. waaw lépp pare na mooy loolu ñu dem si jàmm ak salaam mm. tooñuñu kenn li ma waxoon rek tooñuñu kenn mm. mais ku ñu tooñ rek jog suñu jiko waaw rendez-vous Ngor yëmbal Grand Yoff mm. incha di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Siteu bu Ngor ah. kon li may wax rek rendez-vous suba incha allah à partir de 16h yàlla nañ ci yàlla yóbbu mais euh, Mansour dafa am koo xamante ne muy moor Safle ah Mor Soble nekk yëmbal nekk xale boo xamante ne macha allah yor entreprise am euh, kon li may wax rek dibi moo ci aay ginaar moo ci aay macha allah nekk xale boo xamante ni daal waa yëmbal. am nañ foo xamante ni bu kenn demati ay chekkacaak yooyu na gaa yëpp di dem fi nga xamante ni moom mooy euh, Mor Safle Mor Safle daal nekk na xale boo xam te ne xale la te macha allah nekk yëmbal lépp luy ginaar lépp luy euh, xar mais xale la de mais day daan doole Mor Mor Safle. ah Mor Safle waaw naa ko dégg de. Ah. naa dégg tur boobu de. Ah. waaw mais nañu nañu loxo rek. Mor Safle waaw gars yi xam nga bu ñu lekkee ndawal dañuy gëj a lekkaat ndawal mooy loolu. mais tamit day ginaar ak yooyu waaw bu baax bi la. bu baax bi la mais di sant ñëpp xam nga di ah. gërëm ñëpp. Ah. di wax ne samedi incha allah. waaw combat ak Feugueu la. Hmm. incha allah ak Mbacke Ibi Diop numéro 2. naka ñëpp waajal Ndakaaru ñëpp. incha allah rabi samedi ñu siy woo ñëpp fu waay mënta nekk ñaankat ak lépp supporter ak lépp ñu lay woo képp kuy bëgg Siteu maa lay woo si bis boobu. waaw di sant ñëpp di garab ñëpp. waaw di wax na lépp luñ fi waaree ñu ngi jégalu. amaana mooy loolu làmb jee ko rek. waaw lépp luñ fi wax ñu ngi tuub di yeesu di sant ñëpp tu tànke yi nga fekk fi yëpp ñi ñooy Siteu saa yoo ñëwee fekk leen ñi ñooy Siteu. booy booy yaa ngi nii de. Mansour booy yaa ngi nii de. booy si loo ne yow. booy si loo ne yow booy si loo ne. moom nag moom ci ne yow. Diop daa am fëriñ loolu kese waaw soo kenn du ko rax. du rax dara. Ah. bu ñëwee dina comprendre. sarax ak euh, jën ak soo mooy jëna so moom dina comprendre après. moom junkoom mooy saraxam junkoom dañ koy ut si xeer yi junkoom mooy saraxam waaw dañ koy ut si xeer yi. suba incha allah noonu la ñëw. suba def dañuy sarme si ñu job ku tooñ moom di baal loolu la wasalaam yaa ma gën a. ñun noir la sol yéen ñun zone bleue bi indi couleur dëkk bi waaw zone bleue bi couleur dëkk bi. suba dañuy sarme si job lu suba ak waa Fass ñëppay ñëw waa Dolor. Barmi Fass ñëppay ñëw. kontaan nañu waa Derklé. kontaan ay mbaaka ay kéer yaa xamulaa loolu. bàyyi bàyyi waaw moom na bàyyi wala 19 rek. suba am na sérieux problème nag. na si bàyyi ngeen di ñëw incha allah. non am na sérieux problème boo leen yéexee écran géant lañ leen ñoom ñun buñ toogee ñun ñëpp ñu ñëw wàcce leen ñun ñëpp. moom ba yéexee la lañ kaa tegal mu toog. mais ñoom nee na 10 heures la su ñu ñëwee dañ vidé. su ñu ñëwee. ma ni ñii dañoo bëgg a kii de. ci loo ne yow la waar cool. kon yow yaa di làq Pël Fuuta. nice waa man la. marsu de. jant yettu yàlla. Diop euh, de waaw moom moom muy yuuxu rek. waaw mu ngi naan moom mooy borom soomi. voilà soomu far. soomi farul xam nga la moo tax soomi farul da ko seq ak pël Fuuta yi seq ak a mën a woyal. non woyalaguñu ah. ñu xool xam ne dañ yàgg woyal dañ yàgg naan soow woyal ñun waa Ngor. soow piir wala. ban soow piir soow ndëpp la ñor. ndëpp nu doon moo tax. Ah. soow ndëpp bi. sow ndëpp bi Diop de buñ ko téye mu xam ne ne nii moom sax matul coow boog buñ ko téye. Diop de dañ ko xam ba noppi xam li si ginnaawam waaw ñun booy yëmbali waaw ñun xamante nañ ñun suñu biir waaw été ñun ñoo leen di dalal baax fii si place bi on se connaît très bien amaana nag xam rek sori ñu moo waral sax ñu ñuy saaga si kam si yeeg lëpp rendez-vous tey la bi lamb ji déggoo ma tey la ba ni ñuy daan wala déggoo ma bañ or bañ ori di joxe ndogox yëpp ñuy bëre làmb ji waaye ñoom nañ xam xam ne ni ñoom am nañ làmb làmb supporter am nañ làmb supporter am nañ làmb mbër musuñu daj daj nañ lu mburu dul daj ci taal bu leen mafia 313 bi songee rek ñoom maara day taani kontaan naa yow gën a bég yow na